asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di tàbbi nag ci émission bu mag bii nga xam ne fukki fan juróom yu nekk day xew ñu tuddee ko tànneef ki ubbi émission bi nag pour sori mooy le grande griotte kooku daal mooy Ajatou Xaar ma Madiago tey nag moom la ñu seet si fekk si ko nag fii tey ci Tëngéej ci dëkk bii nga xam ne ni dëgg-dëgg mooy cosaanam ñu war a tàbbi nag ci émission bu mag kan mooy Xaar ma Madiago ak ah, kooku nag kenn leen ko wax Xaar moo leen koy wax Cerna beg Umaru waliyan waliya be Umaru asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi nii nag kër euh, ajatu xaar mbay ma jaaga ndaanaan lu mag li nga xam ne macha allah li ko war ci réew mi yépp def ko jëflante ak réew mi jële ko tamit ci réew mi jëflante ko tamit ak réew mi ci bitim réew yàgg nu bégal nag lool nu tàbbi nag ci émission bu mag bii nga xam ne bii mooy tànneef mu nekk la premier numéro nu jagleel ko nag tubaarkàlla mbagi ndaanaan yi ñoo fekk ko nag ci péeyam di tëngéej ñoo war a waxtaane waxtaane démb ak tey kon xam naa duñu sori lii faram fàcce waxtaan wi nag mu ngi jóge nag ci accutu xaar mbay ma jaaga kon yaay xaar ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay mbay bu baax da sant yàlla di julli nga bi sant sëñ Babacar Si di la di la nuyu bu baax a baax bay di aj ne am nañu mbégte nag jël si la macha allah Sénégal yëpp bëgg a seetaan nag lii tey li waral lii jëfi démb la du tey xaar mbay ñan ñoo la meññ ci ay ndaanaan nga ne xaar mbay ñan ñoo la Mor ma jaaga may ma ma ñeeñ. Mm-hmm. ak ku jublu may. Alassane may set ak Penda Pax ak Degen Mbaye. Mm-hmm. yaayi Mor Dior ak ñoom coono ma xaak Fatma. Mm-hmm. ñoo ma seq. xanaa defe way moom jàng nga ko doon. waaw jàng tekki. ci koo doon ne. ah garmi waaye way dañu may teg ci siis baa du ma taxaw mm. boobu màggat seen xarit yaay lu ko bar dafa ànd ak Maurice Gueye fii ki tëgee mm. samba jeen ba nga ànd ak Lamine Koura mm. xam ne jaay Badara Mbaye yor la yor bu bu bu bu sawar kër Kabus Diouf kër Kabus Diouf samba sama yaay ni ma yéegal ma ne ko ma ne ko ne ma ma yéegee fu may taxaw ba woy mu ne yéegal ma yéeg ñu way kaabuus de buur mooy nag dama ko dood mm. waaw faramaare di si maam rek doy na way laata mm. jóob diggante bàyyi rek doy na mm. kon mbay mooy moom dama koo doon jàng ko nag def nag sama jom def ci sama jom woy ba réew ba réew bu ma demul bariwul lu ma war a def ci way def naa ko lu ma war a wax ci way def naa ko moo tax ma nekk nag mu sumb tey ñaanal xale yi. Mm. yàlla bàyyi leen fi te ñu gudd fan ak wér gu yaram. Mm. damay dégg léegi itam mu xuj a buri. can can eh, cangaay. waaw ku xuj a buri ngaay. xuj buri ma cangaay. Mm. yaayam ki jur yaay ma ki jur sama yaay bokk ndey ak baay. man a woy lool di ndaanaan. moo woyoon daaroo bi nam. seex ñang di ko denc. ñu sama mag. su ma demee ngaay ndax bu nu masaa def bu nu ma bu nu masaa pour noppaliku ban dama naan ngaay laay dem su ma ta ngay dem ngaay ma ne nit mbokkam su ma demee ñu di ma laaxal di ko def soow piir booba soow lay am nii mm. ñu di ko todd di ko def ndax mm. booba booba looloo ma woyloo ku jëna ki ñoo woy la bokk waaw ñu ma woyloo la bokk sama ma nga ñoo bokk ngay defe naa tam li nga wàcce fii ci Tëngéej Hmm? an bi nga wàccee ci tëngëj àndoon nga fi tamit ay ak mag ñu yàlla baaxal waaw nga fi tamit ak ay ndaanaan mag ñooñu ñan la ak ndaanaan itam ñan lañu ñu nga wàccee fii ki tëngëj hmm. man wàccuma tëngëj sama maam ak sama yaay ñoo wàcc tëngëj hmm. ma tàngoon a jaaga fi indi may ko néegu ñax sama maam ñoo mun ne ko demal nga jëli ko demal nga jëli buur dox na yow deetoo dellu ba tey jii sama yaay juddu ci ëtt ba ba tey ba tollu ko juróom ñetti fukki juróom kon alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla. sant mm-hmm. yàlla. sant yàlla di leen ñaanal. sant yàlla mbay. di ñaanal xale yàlla mm-hmm. defar leen jàmm. Mm-hmm. defar leen cet musal leen. di yedd xale yi nag pour ñu xam ne. àddina bi jeex na. te di day jeex. te yàlla kat ku mu xëcc ku mu xëccoon jël la muy laaj. te dee du tàggoo. déedéet déedéet mag ñi nga xam ne ñoo nekkul fii ci Tëngéej. Mm. am naa ginnaaw mbay Jacques mi ngi ci àndal am na yeneen ñoo xam ne ñii tamit ay mag ñu baax lañu woon te nekk fi ñooñu tamit bëgg naa tamit tubaarkàlla nga faram fàcce leen ku lu mel ne Badou Mbeng ak ñi ci des ñëpp nga xam ne kàll ànd nga ak ñoom ànd bu rafet fii ci fii ci Tëngéej. ñun Maris ngay jógee Njaaree bi ñëw Tëngéej. Mm. politique xew Maris la ñu àndal. bu ñu ko jógee. ñu mm. fi dugg comme ni politique yi mel. Ba Badou Mbengue ma Mbaye Sarr Diop ma de dugg si xale bu am jom mën a jàng lool. ñun dañuy xale bu remplacé Mbaye Sarr. dañoo bëgg xale bu remplacé Badou. mu ne jox leen ko kon Mbaye Sarr. mun moo tax mu njëkk a dem ku tudd ku tudd. keroog ba may dem Nantes. fa laa xamee ne xale yi génn fii fa la di ñuy juddoo fa laa xamee carte carte d'identité yi Seydou Diouf la ma booleel. muy Mbaye Sarr. Mbaye Sarr ma di la yëgal dem ne ku mu am a ngi may téye. Hmm. ku mu jur bàyyiwuma. doomu Caba Diop bu ñu ma dikkee Diop ji Caba Diop. ku mu am bàyyiwu ba lu ma may lu ma may ma ci. Hmm. te kam ñi mu fi bàyyi kat dañ caa topp ndax loolooy ngor. Hmm. lu fi jeexal nga génn ci. sama doom yooyu génnuñu ci. dëgg la génnuñu ci. dëgg la daal mooy Mbaye Sarr. waaw ànd ak yow bu yàgg yàgg yàgg. bu yàgg boolewul. dëgg la. waaye rek nga ne nga ne da bëgg xa da bëgg xam mag ñu baax ñi. waaw loolu nga wax. waaw xam nga la na mu daan def xam nga tanoor na mu daan def. tanoor Anta Baxar. naar ba dafa ñëw ne walaay damaa bëgg tanoor ñu ma ma gis ko. Hmm. booba caaya caaya caaya lay sol. Hmm. sama maam nee na sol bu bu bu bi daan wax xar mbaam. Hmm. ne moom la daan sol toog ci bi. sama maam nee naar ba ñëw ne tanoor laay seet ñu ko tanooree mu ne walaay kii du tanoor. mu ne ko tanoor bi ngay seete bi hmm. mu ne wallaay kii du tanoor ba nu yokk añ hmm. bu nu yokkee añ bi teg añ bi teg teg teg war a ba juróom benn ndab ku ne fi ndab la nga ne tanoor nekk lii ndab du lekke loxoom te léeg-léeg day yóotu lekk ba pare naar ba ne waaw woon leen ma tanoor nga ne ko kii la hmm. kii mooy tanoor kii mooy tanoor waaw <laughs> moo daan wax ne xaalis ku ne ku lay may nag ne la ba ma dem banque ba ñëw amul jom la ilaha illallah dama dem banque ba ñëw. waaw ne ku lay béy mu ne ma dem bank te ñëw ne as ne as gor day yol fadoo yëfam. si te te te déggal loolu. bu defar ne ko lii daaw di bëgg a ñëw mu may suñuy maam ay saako ceeb. Hmm. ku mel ne Adama Lo. Hmm. ci mag ñi la maam Ismaïla ci mag la. si te te te te. ku ne ba dikkee Diop baayu bay saak laasul de Serigne Touba. ci mag ñi la. laxasul na sëñ Tuubaa barke yonent bi laxasul na ko man naa koo waat ci mag ñooñu daroor may saak ku ni Saabara ma nga way way way moom way wuréy wa ko wax xaar ak siise baat déedéet pas baat bi da koo ko faram fàcc rek euh, euh, grand sëriñ de Dakar dëgg la yaa bàyyam la woon nag moo da moo yóbboon ci làmb yi. ban ban la xaar ñu tàbbi ci benn bi. Hmm. ku nuy wax Moussa Dia. da hmm. doon ngénte ca Ngol Tappe. Hmm. ma dem ci ngénte la. géwél yi ñëw di way di way maanaam xuteet way sëñ Babacar mun na la mu ne ma may naa la paasu mag Basiru may naa la paasu mu ma ma yóbbu baxtaari faatu ba ta jóbbi mari yaay dooy mu ne may naa la paasu màkka ñu bàyyi ma defe ne ci lay yem umu géy umu xayri géy mu pende law ba jóob ak duudu géy ñu fal ko ministère mu ànd man ñu dem fa kër mañ si kër kër kër ba siw fekk fa baytaal baytaal fekk fa baam ko maloom maam ku ma lu moo la wax moom la jëkk jël ci jabar waaw maam astukan mu maanaam sel bi Abdoulaye ko ko may ca tiyaar bi ko jëkk jël la doom jox wedd wi mu ne ma hmm. xaar ma ne ko naa ma may paas ma ko ndax da nga ànd ak gan dib géwél tekki dama lay yeewi du paas hmm. mu takk awa njoon booba yëf yi melul nii ñu groupoo te da daan ñun dañ daan groupoo doon benn kenn ku ci nekk léeg-léeg ñu invitante ay mbaxal te mbaxal dafa xaw a mel ni mbaxal mu tooy bi gune yi bëgg bu ab gay bu xam day am day am day am nu ne bu ràcc bu jëm kaw rek dafa xaw a dafa dafa xaw a wéy jaabalaaw yi mën kataba lu na ci ba tax na koo ragala boo ko woo du ñëw bañ laa sonal rek jabalaa la ko laaj mais bañ laa sonal nan nga def nga ni jabalaa gi la bëgg a laaj jabalaa min <laughs> dama laa ji yàgg booba tëddee dafa am waax. waax. ah waaw. xale wóor ci néeg gi bu tàkkusaanee ñu dem di nappi yor seen kii waaye dafa amoon waax boo xam na bunt bi mooy jàkkaarloo géej bi bunt bi jàkkaarloo géej. géej géej bunt ba toj géej bu daw gerte ga daw dugg ci biir géej gi. Hmm. lébi yi woy. ne noonu maa jël tubaab bi it mbëxëtal ka ndax gi gerte jaroo xorom géej la jóge dégg nga li ma la wax. bu baax ñu ne aw campagne jaroo waas ñu ne biir boobu. xam nga camp mooy mburu bu gàtt mi mburu bu gàtt bi sëpp ñu ne aw camp jaroo waas biir baw ñam biti baw ñam mënu maa jël tubaab bi it ba xital ke ndax di gerte jaroo xorom géej la jóge ñeneen ni tem tem temale tam tare tema teema yaata mayaata ndooyoo mayaata ne góor gi ndooy di bàyyi jëlee ne bàyyi dem ba maa te gën yàgg na ci cosaan dañuy groupe dañuy groupe juróomi man ñeent bu dee bu dee mbapp mbappatit jokkul day màbb teew leen nag ay mbiri na màbb ñu daje jokkul di way géej gi taxaw géej géej gi duus ñuy dégg ñuy dégg réerum géej gi waaw duusi dal waaye tax bala ngaa mën a bëri dangay jàng mbappat moo doon moo taxoon ñu daan woy ñu daan woy mbappat ndax bari ko dem ba dama am sama benn mag bu ma ne ma waaw xaar ana ana ana waa ki ki daan réer na aatu réer na bari ko xaw ma fu waaye ñett jeex na ñett jeex na yan ak na jom dem na di dem na dem na kóllëre dem na lan moo waral ñett yooyu dem bañ a xam waaw bañ a xam waaw ñàkk xam ne yàlla ngi fi boo ñàkkee xam ne yàlla yore fi bés bu bés bu nga defoon na joore waaye te yàllaa ko yor waay. yàllaa ko yor maa ngi nii may yàllaa ko yor si. yàllaa yor lépp. moom la ma sama papa moom du si wax barki dem. waaw. maa ngi koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd. gis nga yaase fi ja. su dee ba te ba defal ma ci ci ci koor. dinaa wari ci laay wari. jël di sama ginnaaw yi nga xam ne maa ngi nëpp doole. ba ba ba ba julli gi ba tabaski kuy bi koor la ma maam mbaas bi defal. mu sëñ waaw daa tafi mu sëñ waaw loolu loolu jaabal loolu rek mooy jaabalaaw bi ñu ko tabax. juddu baa rëy. juddu la. tubaarkàlla te juddu dëkk ci la. juddoo ak i xaar. ku ñu ne Habib moo tax ma ne ko ndokk yàlla ba nga defee sax xel ci jaamu sa wujjewoo wujjewoo waaw di sans papa rek la la def la def bët yaa yàq mu mbës seen hmm. ak maam saaf may nii ma dal di wax ak moom bu ma ci waxee mu dégg ci hmm. ñoo juddoo fii ki tëggee ñu jël ko jox ko may ko Pape Malick sa xarit ba waaw bëgg la lool moom la hmm. ba fii ñu nawee seet sama doom ñu yëg ci escalier yi nga perdre seen ko yuuxu ñu dugg toog di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba yàgg mu ne ma waaye xaar di ma xaar maam yàq di ma bëgg a rey xaar nan seeti sa pap nan seeti sa doom da leen laajte te boobu ñu ma yebal ñu ma bis bi koñ bii mi ngi tudd kër bukki musu sol wato ba sol ñaari ma takk ñaari ma li ngeen di sol demi saison demi saison waaw réeg mbaxanaam ma mm-hmm. ni sama doom laay laaj di ñu topp ko. mu ñëw ñu dugg ci biir. waaw mu teral ma wax ak man. wax boobu mu wax ak man dafa foor ci man ba foor boo xam ne ndax moom la ne woon bu ko bu ko kenn dégg. bu ko kenn dégg boo tax su ko ñu déggee farat ah, alaaxira laa dem. te yal na yal na yeex yal wax ba da koo ñor. Hmm. maam yàq ñu toog. di sama bàyyi ki teewoon yëpp. ñu samay bàyyi di samay xarit. ma Maodo. sama papa da doon xaritam ak Cheikh Tidiane Sy. sama papa dem na ba Cheikh jottali ko. booba booba Baara Ndiaye moo yore papa Abdou Baara Ndiaye bu ndar bu rafet na. booba tam te xanaa xamul te war naa dem. mi. ci kër ci kër Serigne Babacar gu mag ga. bu tàkku saa ngay toog na fi may ak daba. Hmm. akan kala. kala mbay mu baax waaw waaw moom muy mujj a dégg. waaw waaw wallaay wallaay. dana koo boole jàmm yow kooku sañoon ban kon ma jox ko façon ni jënax xam nga dafa am ñun ñoo xam ne ban ban waru leen. déedéet kon façon jënax ba koy mbay kala mbay bu ñu nekkee teewoon. sans bàjj ak jóge fa bàyyi leen ak waañu wa ñu ñàkk jom ba yaasu ba kenn xam leen. maa ngi xooj fii façon ni jënax yëpp ko jox leen naan. loolu yéeme na juddoo sax dëgg la juddu baa foor daal juddu baa foor kala da daay daan wax ne koo may seet si boo ñëwee ba teewoon ba ba tëggeeg boo déggee tur alaaji may baasin yéemal ci man ah, mbay baasin moo ko meññ alaaji may baasin ay baayam mu baasin si noonu hmm. baax rek lañ ci mais mbay baasin tamit daana ci Mbaye Bass yi daana woote fii ci Tëngéej. maam Mbaye Bass maam Mbaye Bass. waaw daana woote. Hmm. moom xam nga lu muy woote. Hmm. day da daan woo dajale leen wax leen li yàlla wax. dajale leen defar jàggu yi wax leen li yàlla wax. Hmm. woo ma ngi dëkk bi di waxtaan ak ñoom. lu seytaane dugg nag mu génn ci. moom Mbaye Bass daaw wax daaw wax wax jàmbur yàlla nañu ci rek. ba ku mu jur. ak góor gu baax gu daanu PAM Massi. ci tëngeej. waaw kooku da da koo boole woon moom laa la tudde sa doom bi amul bay gan. amul bay gan mu yaa ko tudde Bilal. ngelaw maa ngi bay jooju fëri ma dañuy àq. waaw waaw waaw waaw. wax na dëgg. waaw la ma am la ma am laaj mbay ba seen daan def fekk fi nag mag ñu ku mel ni. Kumba Fall yaayu Bele baayu Bele. Bele Bele sant ma nga woy woy wuri. Bele. dëgg Bele baayam. Hmm. baloon na ko ba fa ñu def daayira bi ba léegi. Hmm. ba léegi dañu. Hmm. ñooñu ñooñu ñoom ci yàlla la doon wax ak yonent bi. mais Bele baayam defe sant ba sëñ sëñ yi sëñ Bele it. sëñ Babacar moom nga waxoon wax bu rëy ba. ko yaa ma yóbbu Màkka. yoon la. ah. waaw ñett yoon la de. daal kon mu min nga ko. waaw ñett yooyu ñett yooyu ci miir naa ko. xam nga ba mu yëngu ba mu njëkkee fay ko lu ma may. Eh. maa ngi may sa jaay. ñetti dërëm. njëkk a may ngi may sa jaay. xam nga ni ko ko ñoo ñoo fonk kóllëre de. 15 francs la de. 15 laa la wax. jàng naa sax l'école ñetti weer léeg-léeg ma am ci ma xam léeg-léeg ma sant ba mu saf. 3 mois. léegi la ma sant. Hmm? ci école. ci l'école bii. l'école bi tudd na ba. xale bi fekk fekk ma dagg fekk. ma dagg fekk. mooy mooy sa papa maa di woo daana dem moom bay woo sax nit ñi pour ñu di jëli xale yi ci pour ñu jàkk moo tax kenn fàttewu ko loolu amul ni fi ko tëggee waaye bu ma la ma ngi soo ko dee lim waaw da doy di fanaan fii dëgg la dëgg la dëgg la ndax daan di mag ñu baax dëgg la mais tamit léeg-léeg dama daan faral tam ngay dégg tamit ngay wax Doudou Cissé daa nga ko tudd ci mag ñu baax man na maa woo jóor ma jóor liggéey yaay yaay xadi sàll yaay Doudou Cissé moo bat moo moo mbay saa moo mbay saa ko xam nu ñu mel. soobu mburu rek. boole naa mburu waaw waaw bu ko xam ne mbay saa day dem day dem day dem ku tudd ku koy remplace mbay saa ñu wut leen keneen ku ma remplace benn biir si xam nga sax dafa bare woon jëm. xarala ba ne du du dugg jokkul su toll la sax. waaw ndax tali baaxat. ñu nan leen dëb ba ci biir Moussa Diaw. moom mu ngi dawal woto Moussa nga dëkk jokk mooy bàyyi ab maxta ama neex hmm. moo jur ama neex ñu hmm. jiitu jiitu jiitu ngeen topp ci man ñu suul te Mbaye Sarr ko mos a woo nga wuyu ko faj soxla nga faj soxla la ilaha illallah waaw loolu la yàlla doxal de noonu <laughs> ku fay soxla. ah nga faj soxla. nga faj xale yi way naan. Hmm. ku ku ëmb sangal. dëgg la nga ko kii sangal ak waaw. Hmm. ñoom maam yéen li na feen ñoom it say ah, ah, ñoom Ndiaye bu Diallo yor fas yi. bu ñu may jiw hmm. ah, bu ñu la may ji ak Cheikh Niang bàyyi Serigne Niang. Serigne Niang. bàyyi dëgg la bi ci fasu gañaay. waaw. mais defe naa tamit su course masaana am léeg-léeg tam daa nga tàbbi yan daanaan nga ca daan dajeel ci course boobu léegi. booba lan. Hmm. ndax maa laaj way booba. waaw. booba dañoo jëli jabu mu ñëw. Hmm. doomu ndar ba. doomu ndar ba. ma ma bari jaay ma naraw naa jaara ma samba. dégg nga. ku ne daan woo mu ñëw. Hmm. man Fambaye Diop. ba jóge Thiès. jóge Thiès. mbana jóge waalo ndey ngom bambiloor jóge bambiloor booba doon sunu wayla mbaara njolli booba laa nanguwul ma joojo génn ci man musuma nangu mu sore ma sama ndijoor ndax raf ma daan njolli ma dabu ko su ma ko daboo rek way soo xam ne ne mer naa it moo na xam na li ma yëngal ma alamal dëgër yaata yaram jeng dëgër yaata mu maa jigéen yaay ñu maa jigéen yaay kooku am. déedéet déedéet déedéet. wax. waaw dootul xew. loolu la. léegi waxoon hmm? sama doom. kooku ma ñu Yacine Ba Ba ma seen Yacine Ba Ba loolu la war a def. Hmm. ba ndeyam daf maa bëggoon. bu ma demee mu mu toggal ma toog gu neex ak ku nuy wax maam ak ku nuy wax maam maam maam ma ñaan moom dama la ciy yóbbante. ñu ngi dégg Cheikh Makhtar Diouf. ñu ngi wax Cheikh Makhtar Diouf mu mu président Abdou moo ko ngénte. waaw. ak Seynabou Diallo ak Aana Ndiaye. bu dee tëgg Fall. bu dee tëgg. waaye na maram jëm. moom it dàqu ma wayam de. ci laa ko way xam nga léegi wayu njëkk yi way da foog ma sa foog ma sa ànd ak léegi. li xale yi def teg ci yoon dañu ko tegu ci yoon waaye way foog ma ànd ak léegi. Hmm. xam nga ni ci ndéng mar sa baawal bi. fekk na doom ñaari ñaari wujj ak benn ñaari doom doom bi wujj bi kenn ki yor dem soldaar doom doom ba fa nekk wujj bi yor ko mu dem rey ko waaye fekk na papa ja yaay ja waxoon doom ji wenn woy woo xam ne ko saa yooyu déggee ay soldaar woyal la dégg bu baax loolu waroon soldaar yi la woo ni ko saa yoo déggee ay soldaar yu ñëw rek woyal wooyu ma woy hmm. soldaar yu ñëw xale ba mu ba ba ba mu jëgalee ba ba jege ko mu ne daawul mooy dem daawul ñambaar mooy dem saxum juróom mooy dem toolu maayaay mooy dem suma ko mu taxa yéene daawul mooy dem. tax mañ la ni taxaw way yu ma dégg sama rakk jaar. way ma dégg sama rakk jaar. way yu ma dégg. sama rakk jaar taal sama rakk jaar. Hmm. sama yaay nu ko sama yaay nu moo tax fàttali baax. ba xale yi daal di ko ne kon kenn ko fas yóbbu bu demee dinañ la ñaanal per hmm. mu jàpp xale bi ci loxo. mu mu yóbbu xale bi ci benn xaritam dégg ko ko. ñëw ci tànn te jënd ko nag ànd daaw mu ne ko danga fee jóge rek yàlla moom ko. mu lu may def mm. te boobu ma fekk na jël na daaw bu ci génn kër ba ñu ko koy fa mu ne na nga koy laxas di ko ñawali yëri ñu mm. ñëw ñu ko damaa bëgg a seeti daaw tante ma dama yóbbu ma seeti daaw wala fa mu ne ma seeti daaw la daaw daaw fa mu nekk mënoo faa dem doom li mu léegi léegi li moom juróom benn at xam xam nga am nga quartier lu man ñeenti at mënu ko waaw mënu ko tata yaay xam naa am na suuf at a genn wàll xale bi moom dama ko dafa gaañu rek ñu defar ko suul ko mënu ko waaw ñu yót xal soldaar ba mu àndal na ko jox ma daawul jox ma daawul hmm. ci xale ba jàpp daawul ci loxo sa ak groupe ba hmm. mu ne a ne ndaje tante daawura a gi noonu tax noonu mu ruus ba daal sëdd bu duus ba doon sëddeem noonu la xale yi doon nañ leen di firee léeb bi doo koy dégg lépp ba dëpp na noonu lañu noonu la wax ba daa doonu sëli doonu sëddin ma cof ca nag ma cof ca kenn day nañ ca magamba way ji nañ ca magamba way ji nañ ca magamba way ji Sénégal dégg ngeen maye maye fekk ñu war a dem Ndar ak kër maam aw asta Dieye. Hmm. waaw man seen may nga ci oto ba. mu yëpp kàddu yokku. Hmm. def ko ay mbase. ñu dem ñu dem ñuy dem gaaya mu guddi bu nañ leen fanaan ci hôtel bi ngay jëkk a daj ci ndar bi ngay jëkk a jot ci ndar. ci ndar fa ngeen fa ngeen fa ngeen dalloo. fa la dem dem ñu fanaan fa bëri ñu ñu ñu dem dem dem dem sax. dem kër kër Baab Awa. comment Baab Sëjee Daaru Musti. Daaru Musti. ñu dem muy kuy kuy kuy mbokkum jëkkëram bu jox la téere alxuraan. téye ma dem jë kuy mbokkum jëkkëram mu jox la téere alxuraan. téye ma dem ku déet amu fi. déedéet. coow lay bari rek waaye ñun ñu mënuñoo fexe ba mooy ñun daan yónni ñoo yónnee. ñu waroon dem yónneent yi ñoo yónnee. ñun daan yónni ne la kaay doxale ma nàngam waaw ñu gërëm kon de dégg dëgg kon de ko yi kon du mën a yem nag wax dëgg yàlla. sëñ Babacar. moo tax bu tàj ñun daan yónnee ñun daan yónnee ñooy yónnee. waaye ñun ñi nag mën nañoo bañ a mere kenn ndax yàlla. waaw lu xew moom. kooku nag kooku rek laa war a tuddee jaaba laaw bi nga kataba ndax ku ne fu di yàlla yow rek ku mën a doon yow rek la. amoo yaay amoo baay amoo rak amoo moom nit ñi moom lépp rek ba lépp rek boo ki yërëm nu. yal na nu yërëm moom yonentam bi. yal na nu yërëm. ndax yéen ko yéen bari na. ko ko sëf. yërëm. yal na nu yërëm. amiin amiin naa ay xaar tamit euh, xam naa kenn mënul tàbbi ci biir Tëngéej danaa dégg nga euh, Ndeye Sow Karim. kuy kooku. yow nag yaa ngi may door a laaj la ma liggéey. yaa ngi may soog laaj la ma liggéey. Abdou Karim Mbaye ab commissaire bu ñuul la. Abdou Karim Kati Diop Fatou Pata Fa Diop ñama yaate. keroog ma ko wayee. ngalam la ma may. te booba ngalam du ngalam léegi de. ngaram hmm. bannaa benn ñoom nga ngëmb ko ci musuwaar def ko ci sa poos daa waxande gaal gu rëy du boobu du boobu ngalam mooy ba tey sax ci ngalam bii ma takk léegi kii lam bi mooy bi seeni mu ko may ba ci lam bii ma takk seeni mu taalam ko may waaye ndey soxna Abdou Karim hmm. dafa boole woon taaro ba pare rafet te am lu xew ci dëkk bi mu fexe ba daan mun dee sañse mu fexe ba daan mun dee sol mu fexe ba daan mun dee maye mu fexe ba daan ba buubu saw buubu saw tudde ko bara bara xanaa barab barab bi fi nekkoon da toj réew mi léeg-léeg mu nu yóot léeg-léeg mu nu yóot ko day di moom ñëf ko bej bu daanu bara waaw moo doon barabara géej gi. Ousseynou bu taal mu Adja Alfijum mbokkum papa tam tapatal ak Abdoul Aziz. nga xam ne yéen ñaar ci cofeel ak mbëggeel ngeen te ànd ba wér maa ngi la koy jàll aji tuxaar kooku li ma jeex mooy yal na ko yàlla xaraaj jëm ndax day gone te bëgg yàlla xam nga loolu loolu nekkoon affaire dem juma ak julli ak toog di jox nit ñi loolu sëriñ bu taal def ku mu téye téye ko fukki loxo Moxtaar Kouré Dieye la bàyyam tudd Moxtaar Kouré Dieye Abdou Kouré Dieye bokk ndeeg ba Abdou Kouré Dieye moo jur fan ndaw taal yaay yaay ma mbay yaay xale ba joxaane daba joxaane kii Korpa Pataar commissaire bu ñuul Kor Abdou Aziz ministère ba doomi non mais Abdoulaye Gueye ku baax daf ma ne xaar ma ne ko naa mu ni ma seen bu taal riis mu ne ko mu ne ma riis ci yaram lay ne sa pap mañ sori am lu ma waxoon xaar yére ma ne pap tamit ma xaar yére mu ne ma foo yoree yére foo dem ñun la yegg si boo ko solee foo dem dem ñun lay doon donc man man ma gis nga léeg-léeg ay nit di ñëw nu dogale sa kenn. jàpp ci loxo. naan ko sa naan ko garmi garmi seen misaal mi ma laaj. dafa baax. Mm. te baax doy na ci baax. ma am doom ju baax. ñu nuy wax doom doom ju baax yaay yaay xaar maam doom ju baax hmm. waaw bu nuru ndayam rek ci mbaax xam naa nag dëgg-dëgg xaar mbay ma jàgg nag moom ngeen dégg noonu tey moom la ñu jël si ci émission bu mag bii nga xam ne moom la ñu wax tànneef. Ah, xam naa bu nu sori nanu ñun ñëpp nañu bokk seetaan daanaan li te déglu ko. aji xaar looy bëgg a ñëw. Fatal la bokkal ndey ak bàyyi yaay askase. Hmm. ak ah, Papa Tall moom nga wax léegi. gëmm dul sos Seydi El Hadji Malick ak commissaire bu ñuul. Hmm. Hmm. ak Aziz. kooku sëriñ Abdou de ci xolam. moom nañu ko duppee it moo tax moom moo tax Mara rek laa koy woowee. moom nag beneen Abdou Aziz mu mas ak nañ si sal ak njabootu bàyyam ngeeg ndeem ji mu leen bàyyi te bu yor leen lool kon kon yow si ci la moom la xale yi naan ngase moom ah, ah, xale ba ca la daawuda si moom xam nga lu muy def hmm. bu at mu koor mi amee nga woo sana faa woo nit yàlla yëpp hmm. ñëpp ñëw hmm. mu wax li yàlla wax mu ni la yàlla wax te da koy wax ci alxuraan dama ànd ak benn nit teewul tasante am ko gaañu téere yooyu nu joxe pour ñi di ci jàng mu naan la waaw pëy pëy waaw mu naan law la cat law la cat law la cat law la cat ba bu dee dal na ko cat dem na. ci law la cat rek moon xaar jàngul. mu tax tey baax. Moussa dafa mel ne dégloo maire de. nee na bi ñu ko joxee jukki. jukki waaw ñëpp toog saa mu jàng xamul lu wax la cat laaw la cat laaw la cat laaw la cat kooku ne ko dee noppi nag cat dem na cat dem na. cat dem na yàgg yàgg nañu bëgg a rey ñun ñu ngi juum sax ndax sa laaw la cat gi. moo tax nit ko baax day téye xanaa gar mi xamoo ne boo teeyee loo bëgg a ba mën nga ko am mm, boo teeyee ndax bu teey dafa ànd ak muñ ñoo lëkkaloo ñoo lëkkaloo te boo muñee man ngaa dabu lu de waaye bubbum gar mi ba mm. bu subaa ma ñaw ko mm. te man yoruma lu juróom benn fukk loolu daal loolu moo tax xol yi dem sama papa nee na ma wan xaar ma ne ko naa mu ne ma. dee gi moom yàlla. ku dee yàlla la rey. waaye nag am na lex yoo xam ne. Hmm. ku yaakaaru ñoom pes ko pes leen. boo doxatee ñaari paa. lañ seen lañ seen yu lagg ngay gis. waaw yoon da yoon moom ca lex ba. waaw yooyu ngay gis waaye waaye dootoo gis. waaye mais xaar xam naa tamit mënuñu génn tëngéej te suñu xel du dem ci euh, ki nga xam ne taamoon bu mag la woon di Alaaji Ibrahima Sakho te xam ne masaana ci tànt macha allah yéen a koy yéen a koy yéen a yéen nekk ak moom. Alaaji bu Sakho. moom kafam lépp. loo xam lépp yàlla rek la. moo ne ñim fi bàyyi noonu leen def de. Hmm? mais bàyyi fi bàyyi fi kenn ko bàyyi fi kenn ko tambaabalo. tey. lu mu la wax bàyyi ma ko wax. Hmm. ñoom kaaka ñoom ñëpp. lu wax seen bàyyi ko wax. seen bàyyi ko wax. Papa Sakho nag. sama xarit la. Hmm. Papa Sakho sama xarita xam nga loo xarit gar ma xarit da bu ma ànd ak yow ñu dox ba tilliit ba marsa Dakaaru baa du daw dugg dem Kaolack baa kees loolu du xarit xam damay ànd ak moom ba boo defee na yoore mun na dind ko def teg ko bopp bàyyi la waaye demal moo ko def ak feebari <laughs> ak feebari garmi hmm. xam tam bari fi. Hmm. dañu waxatul nit ñi seen jukko. déggatul seen jukko. seen jukko. Hmm. ba pare may ñaan xale yi ñu teey te yaru te fonk mag te defanteeg ñoom lu baax ku ci gis mag mu taxaw nga am ñaar fukki dërëm may ko fukk ya ku ci gis mag mu toog ci seen sii sii ñuy bokkante. nga taxaw mag toog nga taxaw mag taxaw nga toog fii ba bari ñi ñu te ñu tegge loolu ki seen bopp waaye boo duggee ci kaar fekk xale bu toog mu ne maam kaay toog fii da ngay kontaan te loolu ci cër la bokk hmm. buñ ko jógee nu am yar am teggin ma di leen ñaanal ma di leen ñaanal yàlla may leen gudd far may leen wér gu yaram xiir leen ci boppam nag nuy julli julli waaw xiir leen ci boppam nag ñu julli su baaxee baax na su baaxut baax baaxee baax na su baaxee xam ki ngay defal mooy yàlla te yàlla dara ëpp ko te gar mi baaxul ndax mer baaxul ajatu xaar mbay woon a wax ba bëgg a giif am gàcce mbaa ci rex jëf loo war woon jëf ah kay ca mer baaxul la waay wax te man koo faj léegi muñ ko lu la waay wax nga man koo muñ nga man koo faj léegi gar bi muñ ko féexal sa xol lu am bokk ak nit ñi di sant sama doom yëpp di leen ñaanal sant waa kër Badou Mbengue mm. torop Papa Mbengue mm. maa ngi koy sant bu baax mm. man waxuma dara waaye waxuma si yéen may jox waaye téléphone yéen may téléphone naa ma bàjjen na nga def mu wóor ma ne fàttewunu ma moo ma ko wóoral dégg dégguma sa doom di Abdou may bëgg a coppati ah, dama gis nga bi bi bi seen bu taal gaañoo dafa dawal watoom ba kii bi payaas payaas ni man du ma jàkkaarloo xaar dina ko bëgg ne Abdoulaye ne ko ne ko ne ko seen bu dee seen bu dee daal dama te xam nga na may def at mu at mu ne mu def ne waaye def barki dépp ñoom ñëpp am ci benn benn doom bu ma bàyyi Abdoulaye si nag sama xarit la xam nga nag euh, kii ko daan wax ba demee nga daan wax xarit dafa for xarit xarit yorum far sumaare bu baax jabari ma dem mbeng bu baax la ndax bona ngi jëkk ci yàq kuy bëgg a def taraaga ca la bon tàmbalee ah fi la a def taraaga na gar bi dimbali nga ma de ah. naa mbay joojo dimbali nga ma de bi lay dir def lu baax fanaanoo ko nu su ma yeewoo sama ñetti millions yi ñaari millions yi dama ko bëgg a may gar bi xëy waxtaan ak man man la teen tee jënd saakub ceeb sarax ko la sarax sarax rek la erreur la payub saaku ceeb duura way duurawul ak payub kabeyo ko te nag yàlla dafa mën dafa mën a moo tax ma ne leen jaam bu yàlla bind def ca yaram wa feebar moo tax tut foo toog rek tuddal yàlla waaye jaam bu yàlla bind def na ci yow feebar te garmi yoon notificat ak juróom ku ko yor ku ko yor dee too wér pap pap mañ so pap mañ so wax na ko Hmm. ne ko yor da ngay dox rek waaye du dëtoo hmm. mais sant yàlla di di yonent bi di sant sama doom waali hmm. di ko ñaanal yàlla ndax lii mu def at mën na mu def njuum tee dina ñàkk rek waaye maa ngi sant yàlla Youssou Ndour ni muy demanteeg man xam naa ko de moo ne ne la ma rakk ci rakk ja benn kan ca kan ak dul waay docteur Ngoone Ndour. waaw. ñu lay defal ñu lay defal man. Youssou day yónni mariage ma ma. mariage ci man. te mariage du dogu de du dogu. doo ko jox ñeen fukk. ñu li la fanweer. kër ba ba kër ba ma mbay saak di seet si kër kër Bacar Fall yoo la fa fekk. yoo la fa fekk. du yow nangu te ma ne ko ma ne ko jox ko jox ko gar bi. man ko jox man yaa ma ko jox ne ma yuusoo la ko jox man la jox ko may saan moo tax def lu baax ca la joxoon oto bi nga xam ne dajjoo toile yi ne bëgguma bëgguma ñu ne ci bëgguma ñu ne daal dëgg-dëgg lu zéro kilomètre zéro kilomètre la ma mbay saak may France la nga ko liggéeyantee France laa mer te bëggul sama mer ñoo fekk mu toog ma nuyu ñëpp bàyyi waaw mënu ma xaar lu ma la def ma ko dara waaye daal mere naa la mu ne ma lu tax ma ne ko géw la buur jaar da ko war la ñetti yoon. lu <laughs> ma wato. seetetetet. ko ni. waaw. géw la buur jaan waru koo matt. géw jaan waru koo matt te bés bu nekk ñetti jaan matt ba tënkee mu ne ma ba dee may la wato mu ne Samba Jabara la àndal. mu ne Samba Jabala loo xaar wax mu ne ko def loolu mooy ko ma nga may ko oto mu ne ko su ma may ko oto kon loolu nga làkk Samba Jabari moo ko firil bët géwél bu mag ba gaw la bu mag ba Samba Jabari su app Samba Jabari ko ne mu ko ne waaw Samba Jabari da xaar wax lan la mu ne ko def na nga may ko oto mun ne ko yow ba ba fii jógee weer wu dee ma ma ma la jox la fukki junni juróom ba ba ñu ko unis ko ma maxtaar maam ah maxtaar Mbow. Amadou Maxtaar Mbow bàjj ba nijaay Papa Diop. moo mu mbay moo mu mbay saa juróom Adama Sow boo ma ngi toog. garab yi daal li ma xam mooy maa ngi sant xale yi. maa ngi leen di ñaanal yàlla. di ñaan nag sama sëriñ sëriñ kër Si bu baax nag. di ñaan bu baax a baax. ndax lu la jëg xam nga lu la xam nga. ma de. gar mi demal ba baax. te kat gar te gar mi. yaram de métti waaye maa ngi tane. dëgg la sant yàlla. dama laa dama laa bëgg a nag li defar loolu. loolu ko defar mbay. docteur ma Ndiogou Ndiaye. docteur ma Ndiogou Ndiaye moo yor clinique. waaw ñu tuddee. bu ñu tuddee. urgence cardiologue. waaw car ci baat. urgence cardiologue. urgence cardiologue. sànq damay naax te damay tiit léeg-léeg. waaw ah, sànq ko na ci yow. ñaar fukki at la ma yor. moom mi ngi fii ci mbaaw. ñaar fukki at ma yor dama faj it. te def def rek sama yaram yi lu ne. xam nga lu muy bañ. Hmm. ma woo ko ne ko sama sama fenn sama ngi metti yaay yi ñëwal léegi. loolu foor lii mu defit wen naa yu ko fooraange xoola barki démb bi may dem bi may dem bi may ca moom laa jóge ca moom laa jóge ñëw tëdd ndey pen jox ma doom ba xasee naan doom damay mel ne ko mandi man dama sant yàlla sax ndax man mënoon na maa def leneen ndax su su suma suma su ma naanee doom bi damay dër aussi du ma waaw du ma fi nekk waaw kon fekk na ma fa waaye maa ngi sant yàlla. sant yàlla sant yàlla sant yàlla. maa ngi sant yàlla euh, balaa noo àgg ci njeextal yi borom réew mi moom nga joxoon sa buum gi président Macky moom moom moom nga joxoon buum gi moom tamit buum gi moom lan la buum gi est-ce que doo ko jël jox ko keneen wala nu mu demee noonu. loolu kom ma dee. buum gi bu dañee ma dee. ah nga moom ba léegi. maa réew mi. man ngaa ak moom ba léegi Marème Faye mi ngi wujjeeg man ba léegi. lii wujj bu baax ak bon nag. noo koy wooyee. xam nga nu ma koy woowee man. Macky laa koy woowee. Hmm. ak di sàmm nooy xale yi. seeni feebar ak mag ñi. Hmm. dama feebar day bañ a dégg. Hmm. ñu ngi ko dégg faj ko tëdd di buli jëkkëram nag. maanaam fay ka mën lu baax. te du ko boolee ki wax. du ko boolee ki wax de. ma sama maam nag daana wax ne. waaw li tax wax ju bari baaxul la léeg nga wax fu la dunu ko gëm. kenn du ko gëm daana ay eh, mooy def daan wax rek. fekk yaa la yàgg ci fulla moo tax nag ba mu jot moo taxoon ma ne moo taxoon ma ne mbay saak wax ba wax jotee jëf ba jëf jotee. Mm. soo ko mosaan ne ko mbay. may ma nangam ndax dama daan dof dof lu jël sama kayitu làmp gi ñu fay daaw jéeg ma dem na ko fay ñu ko moom noonu laay def papa jooy bitti ñu xool ko jàng ko ne yaay bu ko defee bu jàng ko ne ma xaar xanaa da ngaa def ne damaa dof kii daaw lan ko fay géwélu jëkk ya am na de géwélu jëkk ya am na par bi yàgg na diw la faral diw la faral far loolu yàgg na. ak péete yàgg loolu yàgg na de. dëgg daan féete ba mu wóor na ne kii dafa féete. waaye xam nga ku baax. Hmm. Mansour Mbaye. ah kooku la hmm. laa bokkal jamono àndak moom fu ne. Hmm. ndëkk bu nu ma sant maa ngi fàttali ko bi fi déggool ñëwee te dem ndar sëkku buur. dafa dëgër ñëwee dégool sukkundaat di dem ba baa ngi ànd ak maam yaay si nag ndey soxna ñu dem ndar ak moom moom mansoor ñu fekk ko ma faal leweni mu teral ñu dana nu cëpp yaay ja leweni togg ma nag laax damaa bañ kumba daan ma dimbale ko ci gan yi waaw kon kon yàgg na ci réew ndeysaan dama tudd nag bët géwél bu mag di Mamadou Mansour président de tous les communicateurs traditionnels mhm. muy sa càmmiñ nag di sa mbokk di sa xarit ba pare bëgg la mu jëloon la jox yor góor ñi dénk la jigéen ñi te ba tey tamit tubaarkàlla wàccu la waaw waaw dundawuñ ko dara loolu yàgg na daga naan ba mu ba mu tàmbalee moom boppam def defi guddi guddi yu boppam la tàmbale ci ñun di defanteeg ñun lu baax te xam nga noonu nooy jaabalaaw yu mel ba yéen yéen daal nunu nooñu ñooy jaaba laawu min kataba waaye sunu machine rébajoo waaw la ñuy woo lu baax day def lu baax bu nu woo mu ñu ñëw mu ne waaw lu ngeen jote ku nay laay hmm. mu ne may naa leen ñaari million noonu day déggan togg ñaari ginaar togg ko ceeb na nday anta rey ñaari ñaar ñaari xar def mu fi hmm. ñu daje nag ñu daja jëna kër nday anta bëggul dara lu naqari ku ci nekkul ci loolu gët mu war a wax la bàyyiwul kenn def lu mu war la def réew mi maa ngi tane maa ngi leen di gërëm alhamdulilah maa ngi tane maa ngi tane maa ngi tane waaye sama doom ja sekk maa ngi koy ñaanal maa ngi koy ñaanal mariage mi seen bi yal na fi yàgg yàlla far ko cat waaye réew mi xam xamante ma leen maa ngi leen di gërëm réew mépp réew réew réew mépp réew mépp réew mépp réew gis ci man lu ñu war woon gis te gis moo leen naqari kon war na maa balu réew mi mënu naa la ko feebar feebar naa la mag rek feebar la mais xaar dëgg-dëgg dix-huit ans laa gis ma pourtant muy fukkat ak juróom benn moom laa am waaye xër rek xale yi dañuy xër rek ci man ñoom ñëpp a xër ci man moo tax may ñaanal ñëpp yàlla may leen gudd fan may leen wér gu yaram di ñaanal ñëpp ñuy julli di ñaanal ñëpp ñuy def lu baax di lu baax te bàyyi yàq yàq baaxul ndax loo yàq ndax tey bu fekkee ne yàq nga woto yi ñuy dugg doom ci lay dugg ëllëg wala sa ndey wala sa ndey ci lay dugg ëllëg hmm? te yàq gi doo xam nu yàq demee bu ko mu metti lool te asgóor li asgóor mënam saay saay mënu mu kon xale yi wàññi leen tuuti dangar yi dangar yi dangar yi rek maa ngi leen dangar maa ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm gërëm ñëpp waaw mbooloo mi defe naa ni daal ñun ñëpp ñoo bokk déggandoo émission bu mag bii nu def ak ajatu xaar mbay ma jaaga ndaanaan lu mag li lé mu indi démb indi tey ñu war a dem nag ci cëppaandaw gi nu ñaanal ko nag yàlla mi nga xam ne moo mën a sàmm yàlla nañ ko yàlla sàmmal yàlla guddal fanam te may ko wér waaye toll na ci réew mi foo xam ni li war digganteem ak ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci réew mi ba réew mi sagu xaar ma jaaga dëgg-dëgg foofu la toll président Abdou Diouf décoré na ko président ab lay Wade def na lu ni mel décoré na ko yóbbu ko màkk loolu nag ñu ngi koy ñaan nag la président daal président Macky Sall kii tey nu fekk si fii tey ndaanaan yi nekk ci solaanu moo leen dalal jiite leen bu yàgg te yàqu ci ñoom dara ku ci nekk mu woon la yoon kon nag bu tombee nag tubaarkàlla sax ay jile ñi ngay defal daal ñi nga xam ne nii ñooy les grandes divas bëgg nañ nag tubaarkàlla nag aji tuxaar bay ma jaay mi tamit ono nga honoré ko ci loolu dina nekk loo xam ne lii lu am solo la léegi na aji xaar. da maam Awa Ñang. waaw maam Ami Ñang maam Ami Ñang. maam soxna Pédéro. waaw moom noo bokk baay. Pedro maa ko waaye li ma jëkk a neex téléphone gi ma téléphone ni ma bàjjam sama papa may laaj sa numéro daf la bëgg a woo dafa bëgg a wax ak yow c'est fort président bi Diouf waaw leen mun ma sama papa moo ma ne téléphonal sa sa sa nga jox ma numéro mu téléphone mu téléphone ma mu jox ma numéro bi maa ko téléphone. te kat lu ma mos may na ma ci. waaye maam mi ñan maa ngi koy sant di ko di ko ñaan bu baax. aasi. aas kase. nan na ko yàlla bàyyi ak njabootam gi. bàyyi ko bu taal bi. ndax yor na leen lool di gërëm fàttaal. di gërëm ndey ami bu baax di gërëm nag sama càmmiñ yooyu Abdou Assis ak concert bi ak Papa Tall ministre bi eh? fan teg bool ma géwal xam nga lan ma def ma maxtaar ku la jëyee ma jur ñoom loolu lañ def ci seen bopp moo tax ma di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sant ñaanal nag sama doom ji am na ko yàlla jàppale. Mm-hmm. di ñaanal Youssou di ñaanal ñëpp képp ku taxaw ci rajo di ko yor. Mm-hmm. yàlla la yàlla jàppale. defal la ci baat. Mm-hmm. maa ngi ñaanal ku ma gawloo yàlla may ko wér. ba mu dellu ci ba mu dellu ci liggéeyam. ci barke yonent xam naa nag euh, ajatu xaar mënuñu tàbbi ci culture ba génn ministre de la culture bu bees bi tamit dëgg dëgg moom tamit war nga sànni ci moom ay kaddu war na déplacé wu fii ñëw fekk si la fii loolu tamit euh, loolu tamit lu war a nekk la ñu ko wax Aline Sow ministre bu bees bi. Alioune Sow kooku moo def li naan moo def lu kenn deful Alioune Sow dafa toog ak doomi ñoom maam góor jasaaka ne leen man làmb rek laa bëggoon def mel xaar bay surtout doomi maam góor jasaaka ni ko sama maam la dinaa la woon këram siis bii la toog siis bii la toog lu mat fanweeri alkaati taxaw ci buntu kër gi. benn alkaati bu ko ak tubaab kàddu dama doon xam galon waaye xam naa ne lii lépp lépp lu gàtt ak la taxaw ci buntu bi. mu toog fii moom Alioune Sow. fekk si fekk loolu la def. te tele laa wax. ñëw na ba ci kër seet si na waaw. sa kàddu gu mujj. tant premier ministre. Amadou ñu ko ñaanal li yàlla defal. yàlla leen. li waaye dëgg yàlla na ko yàlla ci barka Mouhamed. lu lu ko waay di jox. yàlla na leen ko jox ci jàmm. mu sën leen ci dara bi xam ne tamit tubaarkàlla ñi ngi ko seqal tamit te nekk ci réew mi te xam sa cër. defe naa tam ñu lay jox sa cër wala ko la ko ci joxul tamit dëgg-dëgg na xam ne daal dafa agsi gul mais tamit cër boo war na agsi am na yuy ñëw man nag man la yàlla binde manuma ni diw baax na te baaxul man la yàlla binde it du ma ne ñëpp a baax ndax du ma gis ki baax si man mbooloo ak ak bëgg bëgg la xale yee pënk tax ma gërëm ku ma defalu dara ñi fi nekkoon ci maire waa tëral nga njaboot su la tëral nag Badara Mama yaa seen man seen soxna ngay tëral na may saa duuru ñëw ak Njaay ñu yoral ndaw baayu baayu Njooro Njaay gar yaa ngi bëgg a xam sama jikko de damay naax di fàtte. dégg nga ku wax maar mooy maire bi topp ci man ku baax ci man la waaye defanteeg man lu baax la waaye maire bi bag bi Cissé barke dem ma maa yónnee ndaw ne ma yónnee ma yónnee ma yónnee ma lu amal loo ma yónnee ndax dañ laa war a dimbali loolu na ma ko fi sa def te ki jot ñu dimbali ma moo ko ci ma sa def ñu ko def sama samay gars yi la ne woon ñuy faj samay soxla waaye jógewul ci mairie waaye moom jox na ma sama cër ci mairie ku ndax maar jox na ma sama cër ci mairie dëgg euh, balaa noo tëj nag sa doom su Ndour li nga xam ne moo fi yabal rajo bi télévision bi le ànd tamit ak Ndiaga Ndour sa doom bëgg la lool wax dëgg yàlla. yow tamit yëpp kàddu ngay def ci ñoom ak xaar. xam nga ci biir commandement bi dama ñu la Ndiaga Ndour man ci son jëm bopp maa ngi defar sama yëpp ànd ak eh, eh, eh, am na man mii maa koy teg xam nga lu tax. waaw. mosunoo gisee xaw ma njaga. tey eh, naa koo xam. waaye li ko réew mi wax laa dégg yéen ñii li ngeen koy wax laa dégg waaye mosuma teg te mosuma ko teg dégg waaye buum nga fu mu ne woon ne ko na fa baax. waaw. te yaa ko gën a nopp te nag ku la nëbbul day yàq àddina sa xol bi muy def til ba yàgg mu bàyyi yow la yow ku la nëbbul baax te maa ko mais bëgg naa dégg galle tuuti dee galle doo ko woy nag danga koy wax rek

ak ndey mbuub ak mboy lu ma sax may na ma ko booba baat baa ngi fi way waa ngi fi dañ waay woon a Kongo lu ma sax may na ma ci gumbaa nga wëggaan maara nga njekkat du paat ma jigéen da am may na ma ci nga mono noonu la saadi bu benn man ma yaay sama jaamu yaay dama lay dinaa dama lay may woo ñëpp ñu may la na na seet bu taal defoon bërki démb ba ñuy ngénte doomi rakkam day maye ba yàgg bu ni bëreet taxaw ci siis ba yëkkati téeméeri gi ñu ne maa ko may xaar mbay ku tax ma ñëw na may xaar. loolu la wax. ñoom kulu maama. xaritam yooyu maa ngi leen di jaal nabu ak sa euh, Margo Margo Camara waaw ñooñu noonu am nag sëñ bu ca lekkool Margo Bala Camara waaw Bala Camara waaw doomu daal bala moo mayoon téeméer junni ba ca kër ca kër Mbaye mu xam noonu am ceeb bu neex Ousseynou bu ne ma nuyoo nuyoo la laajte kaba kamara bi ma nuyoo moom muy dem may ma téeméeri junni ma ne bu kii bés bu doon ko toggal ceeb dañ koy war a fii gën. ndeysaan mas naa demit ndar moom laajte kamara ci bam moo doon feer bayoo wax ma ko maam faa mbay mbay ñu dem ci réunion ba may na moom la tëkk ma ay jëfam it ñu muy dimbali ñi xam ne mënuñoo ñu dimbali mu dimbali leen xam naa ko ci moom xam naa am da seen bu taal ñetti góor ñu mag romb ñu mu jox la ñaar fukki ma ni dënn ba yàgg ma ni waaw mag ñu day nii de mu tolloo fi juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar fukki taxaw yoru yàpp du yalwaan ba nu dem ba nu deewoon defaloon seen yaay dara ak seen papa. waaw bu boobaa bu ñu tolloon ñu fay fay seen baay ah man mam juróom-ñaar fukki at taxaw ci tali bii bu doon defal lu baax ñoom yaayam ba mu ca tolloo ca yegg si mu ne ma mu ne ma waaye xaar ma ko waaw mu ne ma jox ma ko yàlla laa ko jéggal ma bu baax. jéggal ma bu baax. jërëjëf xaar mbay ma jaaga ndaanaan yi émission baa ngi noonu émission bi nag euh, muy tànneef ak seen soppe El Hadj Oumou Mbaye Karim kaddu lan mooy sa sa sa kaddu gu ñu lan ngay tàggoo tamit mbokk téléspectateurs yi lay seetaan ak di sama njaboot leen gërëm di leen sant. ñaan yàlla nanu mànkoo mànkoo nekk benn ndax boo nekkee boo boo boo boo mànkoo nekk benn danga dul gaaw a fitti te fas fas bu yore bee booy xëcc bugg muy dañ kon njaboot njaboot du man rek de njaboot ju war naa ñaan yàlla yàlla jubale ko ak njabootam te jubbu man loolu lay ñaan yàlla gën ko yàlla defal ko kuy njaboot te na sa njaboot aw lu waay bëgg ci xorom yàlla na ko yeggale li ci biir suuf yàlla na musal ci safara mbugal ñun ñaam yàlla nañu ko bokk ci dara yonent bi ñun ñii dundit dañu yàlla ci ci boppam solo ñu te may nu jàmm ci barke Muhammad macha allah macha allah ah mbooloo mi ñun ñëpp defe naa ne nag dëgg dëgg ajatu xaar mbay ma jaaga kenn du tabbi te ngéej sa xel jëm léegi tam ci mbambiloor ba day goon mbambiloor daan xëye xel war a dem nag sa xarit bu baax kooku mooy kat janjoo gar mi waaw janjoo bi fas yi dawee dafa rocci ngeer ngeer hmm. xam nga lu ma roccee ngeer waaw su may bokk na nga newul ci dëkk bi te yaakaar ma hmm. yaakaar ma te nit ñi yem kenn yemul ak sa waay. te li nga ma ñàkk fayda mooy defar di jaabur bàyyi ñu nga bokkat. dëgg may ma ñaari kër. loolu la xam nga ku ma ko gërëmee. waaw sëriñ Babacar yàlla ak yonent bi ak sëriñ Babacar bi ko def fii. ndañ day yokku. lu mu yor day yokku. Hmm. lu mu sémb day yegg. Hmm. léeg-léeg ma ñu yaaru mbay jabari jabari kii demoon seen njañ ñu ko naa may soow. jox ko may ma soow moo xam ne moom day aw ñuul. day am dax. day am la ci moom lañ daay léttoo boo ré boo boo def dax. waaw mu neen mbat. Mm. sax am soow ju la xëy. sama yaay da daaw maam daawul daawul daawul suukar soow. da ko daan yëngal naa. yëngal ndax ndax ba moo ko suukal boppam. Mm, neen njañ. Ah. xaar nee na na na na jubal rek. waaw. mu jubal. xaar defe naa ne tamit kenn dugg France te sa xel dem ci dëgg rek sa xel Alaaji Ousseynou Diallo. bu Bakar ba bu Bakar ba ma hmm. kooku. maamam. mën hmm. a bànn. te canga canga. bu fenn jàll. lu mu war a def Ndar def na ko ca Ndar. lu ko ku bëgg dëppal bi ci gàddaay. waaw Sëñ Abi Kan Jàllo. moom Sëñ Abi Kan Jàllo borom na daay. lu sa lu sa lu sa bàyyi daan def yaa ngi def lu ko raw. lu mu daan takk yaa ngi takk lu ko raw. lu mu daan faj yaa ngi faj lu ko raw. la bi ma jëm xarit Ba. moom ko la bi ma jëm xarit Ba. lan la yàlla may jàmm. garmi dafa ñëw seet si na te maa garmi yaay suñu jaabalaawu mën kàtta ba ñu am nañ koo may. ak sa ak sa xarit ba joxaane. joxaane nen na joxaane nen na. sama xarit ba. ak ndey mu les Guèye. Mm. dee te bàyyiwul. Mm. nday mari gi mu les gi fii ki tëgg lu ma may lu ma may na ma ci ñun ñëpp maa ngi leen di gërëm. ak sa ak sa mbokk ma euh, Alimatu Mbay koo sama ma bëgg kooku da kooku soo woyee da nga naan mana kooku ma bëgg te def def dara te tudd ba sama xarit la sama rakk la te damaa bu jéeg magam waaye man la faraloon damaa mu jéeg ne dafa béy ci góor ma ngob ma le waaye man mii la faral. moo tax xarit baax waaye ñu daan yónnee ñu leen wax yow demal ba ca diw ñooñu ñoo ñoo ñoo yónnee loolu loolu lépp naa bañ a wax de. kooku daal ma ajatu ma jàgg foofu daal ci la seen soppee El Hadj Oumar Mbaye Gane mi tàggoo ak miroir du Sénégal di leen wax ne daal dëgg-dëgg ba beneen numéro à la prochaine merci.